الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بعد mbokk ji assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñoo ngi sant yàlla subhanahu wa taala di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ñaan yàlla mu defal ñu tawfiq dëpp lañu ci li mu bëgg moom borom bi subhanahu wa taala dëpp lañu ci njuba bi nga xamante ni moom la jox yonent bi sallallahu alayhi wa sallam may ñu ñu dund ci ngërëmam bu ñuy jeexal jeexal ci ngërëmam bu ëllëgee bu ñuy dajeeg moom am ngërëmam yàlla yàlla defal ñu ko defal duñ incha allah ginnaaw loolu comme ni ngeen ko xamee darsu yi ñuy amal ak saa yu lii weer wu nekk moom la ñu war a amal ak tey incha allah azim te mooy darsu bi mu bi aju ci téere bi ñu tuddee maa daa yaani intimaai lil islam askanoo gi maay askanoo ci lislaam lan lay tekki yaakaar naa ñi fi nekk ñëpp gis nañu biñ ko tàmbalee ak léegi gis nañu njëriñ yi ci nekk ndikk te jullit du wax rek dem toog waaye du col ko boo xam ne da ngay génn rek ñoo nekk ab jullit la waaye jullit gi dafa am li muy màndargaal ci say jikko ci say comportement ci say jaamu yàlla yi donc incha allah moom la ñuy continuer kon duñ def lu dul ñëw bàyyi ko jox ko micro bi ñu ñëpp ñu ànd déglu ko incha allah ñaan yàlla subhanahu wa taala mu defal ñu dégg ak topp incha allah kon sa fadlu sku
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom nu ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu comme nin ko miinee di def mooy fàttalante yéen ak yéen téere bii di maza yaani intimaa yi lil islaam ñu toll tey ci dars wa xatta akuna musliman fi ibadati fa inna dalika yujibu alayya ma yali ba may nekk jullit pour ma nekk jullit ci sama jaamu yàlla loolu day waral ci man mbir yi di ñëw pour ma nekk jullit ci jaamu gi may jaamu yàlla su ma bëggee yëg ne maa ngi jaamu yàlla yàlla mooy sama boroom moom laay jaamu dafa am ay mbir yoo xam ne moom mooy war ci man pour déggin bi neex yooyu ba ci njëkk mooy antakuna ibadati hayya sama jaamu yàlla dafa war a dund a ndeke jaamu yàlla day dund ndeke jaamu yàlla day dee jaamu yàlla gi dafa war a nekk jaamu yàlla guy dund gis nga ni nit di dundee ni garab di dundee ni yaram di dundee ni kawar di dundee ndeke noonu la jaamu yàlla di dundee tey lu tax sunu jaamu yàlla yépp demul mooy dundul ni day jaamu yàlla ba mu yëg ne wax dëgg yàlla man li may def nii amal na ma njëriñ li may def nii maa ngi koy sentir maa ngi ci am yëg-yëg wolof yi dañuy wax ne la mu saf ki ko màcc moo ko xam la mu saf ki ko màcc moo ko xam pour ma yëg ne maa ngi jaamu yàlla foog ma yëg ne jaamu yàlla gi mu ngi dund maa ngi ci am yëg-yëg sama digganteeg boroom waaye jaamu yàlla googu muttasila bil maabud daf maa jokkale ak yàlla jaamu yàlla gi daf lay jokkale ak yàlla ñun jaam lañ yàlla mooy sunu boroom dañu war a jokkoo ak moom ndax bu ñuy dem ci moom dañuy daw ak sunu tànk ndax dañuy féey ndax dañuy naaw déedéet jaamu gi moo ñuy yëkkati fii ci suuf yóbbuñu ci kaw benn américain dafa tuub bi mu tuubee mu génne moom dafa dafa dafa tar dafa tuub rek tar suy julli day lal si jaada bi ci digg mbedd bi nodd benn américain xaritam fekk ko muy jàpp parce que dégg na histoire bi diw di dafa tuub diw dafa convertir léegi jullit la mu ñëw fekk muy jàpp rek waa ji attaqué ko xas ko ne ko nga tardé yow li tardé lii nga dugg ñun américains yi tey dem nañ ci weer wi dem nañ asamaan samp nañ fa suñ drapeau nga nekk fi naan da ngay jàpp waa ji ne ko fan ngeen yegg mu ne ko ci weer wi mu ne ko man ci borom weer wi laa jëm waaw
waaw suñu jaamu yàlla yi ñuy def lan mooy jubluwaay bi lan mooy suñu jubluwaayu julli lan mooy suñu jubluwaay jàng alxuraan lan mooy suñu jubluwaay zikr tudd yàlla lan la pour egg ci yàlla moo tax gis nga ci julli gi sax yàlla mu ne was jut waxtu waqtarib su jootal nga jege yàlla kon julli gi jaamu yàlla gi ñuy def ibaada bi dafa war a nekk muttasila bu lay jokkale bil maabud yaa ki ngay jaamu jaamu yàlla gi bu ñuy jokkalewul ak yàlla julliwuñu jaamuwuñu yàlla su ma waxee jaamu nag lépp xeetu jaamu yàlla dugal naa ko ndax yaa ayuha nnaas ibudu rabbakum allazi xalaqakum wallazina min qablikum laallakum tattaqun yéen nit ñi jaamu leen yàlla jaamu yàlla du julli kese kese kese du woor kese kese kese du jàng alquran kese kese kese déedéet loolu yépp ngay boole mu nekk jaamu loolu jaamu go nag moo tax yàlla binduñu jaamu googu ñuy def daf ñu war a jokkale ak yàlla jaamu gi bu la jokkalewul ak yàlla rek war ngaa xoolaat ndax man maa ngi jaamu wala jaamuwul moo tax nga dégg saxaaba yi wala nga dégg ñenn ci ñu baax ñi gis ku julli ba pare ñu ne ko jullil julli woo boo jullee dëgg dëgg doo mel nii boo doon julli dëgg dëgg dëgg lii doo ko wax boo doon julli dëgg dëgg lii doo ko def boo doon julli dëgg dëgg fii doo fi yegg ndax lan jaamu yàlla gi moo lay jokkaleeg yàlla mi ngi mel ne pot lampe rek bu nekk ci wetu kër kër googu fekk jëlul benn fil bu jógee ci poto bi ñëw ci kër gi ci compteur bi kër googu du tàkk jege courant bi taxul nga am courant wala yàgg ci géej gi xeer bi yàgg ci géej gi ndax tax na mu nekk jën tax mu nekk jën jege poto bi taxul nga am courant am portable bu rafet nangam nangam taxul nga am réseau boo ci amul pis ah ah utal marque bu la neex ci portable utal marque bu la neex soo ci deful pis doo am réseau Sonatel ku la woo du wuyu wala pourtant am nga lu baax foo dem wane ko ñu ne allahu akbar kon dafa am loo xam ne moo ñuy jokkaleeg sunu borom loolu mooy jaamu gi mooy jàng alxuraan bii mooy naafila guddi mooy woor mooy mooy zikr mooy mooy mooy limal xeetu jaamu yàlla yépp muttasila bil maabud mu ne wa haadihi daraja al ihsan lii mooy daraja nag bu la yeggloo mooy nga rafetal ci yàlla maratibu diin ñaata la salaasa maratibu diin salaasa al islam al iman al ihsan diine ñu bëree bëri dañuy yaakaar ne soo duggee benn bunt rek da ngay toog diine étage la immeuble la gratte-ciel la bu jëm kaw asamaan tey ji kenn ci ñun buñ newoon immeuble bii cent étage la xool ci bu la neex nga dëkk kan ci ñun mooy jël bi ci suuf damay laaj cent étage a ngi nii ñu teg caabi yi ñu ne xoolal bu la neex nga dëkk wallahi alazim ñun ñu toog fii kenn du dëkk ci immeuble bi ci suuf fekk caabi yaa ngi ni ñu teg nga gis ñu koy compter ba saa mat kenn ci ñun nangu bi ci suuf xanaa ku tardé ku ñàkk pexe ku ñëwul fekk numéro un fi des nga ne ah ana ñu ne la jël nañ yëpp nag wax dëgg yàlla bi fi des nga jël ko ak naqar da ngay bëgg a dëgg 10 17 ba 15e ba ba ba ba noonu lu mooy jaamu yàlla suñu la ne maratibu diin état bu diine fooy tàmbalee mooy islam dugg nga léegi après nga dem iman après nga dem ihsan après nga dem da nga dégg ñu ne madaari ju saalikin gars yi fi ñuy jaar pour yéeg ay étape la soo ñëwee ci bii da ngay dem nga ñëw dem nga ñëw dem nga ñëw dem waaye ñun dañoo ñëw ci islam rek egg na egg nañ suñu problème amuñu sax iman xoolal li li waa ji doon wax sànq Abu Hurayra na Abu Hurayra ku baax nga jàng nga xam nga lépp waaye yaqiin moo la dese foo nga ut yaqiin Abu Hurayra génn di uti yaqiin ànd ak mbooloo mi lu mu njëkk a def ah lu njëkk a def ñu ñëw ba ci benn dex benn géej ñu war a joxe kàddu yàlla ñu fekk yéeféer yi toxal nañ gaal yi pour julli ñi duñ traversé amir bi leen jiite woon ne leen xanaa amu leen yaqiin ngeen di dengi dengi ne fii war ngeen traversé géej gi ayna allah ana yàlla du ngeen tudd turu yàlla ngeen xuus géej gi ñu daane bismillah xuus géej gi abu hurayra nee na bi ñuy xuus géej gi sama yar wadd na ma wàcc ci biir ndox mi di ko for nee na jël naa yéegaat ci kaw samay tànk tooyul parce que dañoo am koo lute ci yàlla mooy maratibu diin foo nga am ihsaan tey kenn ci ñun fii su doon julli bi mu muy julli gée bi mu ne allahu akbar malakal mawti ne ko soo paree da ngay dee gée boobu noo koy jullee dama ko laaj góor ñi laaj ko jigéen ñi ku nekk ci saal bi laaj naa la ko ma ne kenn ci ñun bu doon julli bi mu ne allahu akbar malakal mawti ñëw ne ko soo paree da ngay dee julli googu mbokk yi nan lañ koy jullee ah day rafet wala day dal njàng mi ruko yi sujjóot yi léegi lu tax nga julli julli bi noonu léegi yeneen julli yi defoo ko noonu parce que malakal moo ci taxawul kon ngëm gi des na kon des na kon looloo tax julli googu nga xam ne da nga kaa julli julli ku normal nga xam ne tey julli gi xam nga ne lépp matal naa ko julli boobu moo lay yóbbu ci yàlla su fekkee buñ la tiimul ak mbolde rek doo doo normal foog mbolde mi tiim la kon yow naroo normal xam nga lu tax nekk jullit neex li tax nekk jullit neex waxuma jullikat de dafa am jullit ak jullikat li tax nekk jullit neex mooy ab jullit lépp luñ ko sant daf koy def te du ci xalaat kenn lu tax lu tax day wax maa ngeeg yàlla ayna allah day wax ayna allah ana yàlla sàmmkat bi bi ko Ablaye ibnu Omar fekkee ci àll bi muy sàmm mu ne ko jaay ñu ci xar yi mu ne ko moom ma ko mu ne ko boo demee nga ne boo demee nga ne nga ne nga ne boo demee nga ne sàmmkat bi borom xar yi boo demee nga ne borom xar yi till yi ñoo ko lekk lan la sàmmkat bi wax Ablaye ibnu Omar ayna allah ana yàlla xolal Abdullah ibn War moo jàpp sikkim bi ndeysaan foofu la jàpp sikkim bi di ko wañ naan qaala ra'i ayna allah sàmmkat bi nee na ana yàlla pour ñoon sàmmkat warul normal nekk jullit dafa neex góor ak jigéen nekk jullit dafa neex góor ak jigéen ndax dootoo ut ku la contrôler ndax da ngay xam ne inna allaha maana yàlla mu ngi ànd ak ñun yàlla mu ngi lay contrôler kon jaamu yàlla gi daf lay jokkale sa digganteeg sa borom loolu moo lay yóbbu ci daraja ihsaan mooy lépp looy def day rafet ndax da ngay xam ne ki lay contrôler mooy yàlla yàlla moom warulaa tiim ngay def lu ñaaw dafa am benn waay bu amoon photo photo sëriñam la taf ci biir néeg bi su guddee moo soxna si bu ñu waree tëdd ci laal bi rek mu ne nii xool photo bi mu gis sëriñ bi di ko xool bu ko soxna si ne nii rek mu sëñ baa ngi xool de ndaw si daal di ba soof affaire bi soof ko ndaw si daal di génn photo bi biir néeg bi yóbbu ko ca sàll aj ko foofu waaw xoolal loolu xoolal xoolal xel boobu ne sëriñ bi mu ngi ñuy gis mu ngi xool de mu ngi xool léegi ana yàlla moom ayna allah ayna yàlla jaamu yàlla googu moo la yóbbu ci ihsaan fil ibada qad su'ila rasul sallallahu alayhi wa sallam anil ihsan fa qaal an ta'buda allaha ka annaka tara fa in lam takun tarahu fa innahu loolu mooy ihsaan foo nekk yàlla moom mooy gis ndeysaan boo nekkee ci kër gi boo nekkee ci liggéeykaay bi boo nekkee ci mbedd mi foo nekk yàlla mu ngi may gis gis nga loolu bu nekkee sa pas-pas lépp loo def day baax da ngay noppalu ndax lan dootoo ragal nit ñi dootoo ragal kenn benn dañu génn dem Casamance di daawa ji ñu ñëw jamono yooyu dafa metti dafa tàng xeex bu metti kaset sax kaset kasetu rajo yooyu moo amoon boo ñëwee dañuy xool kaset yi loo ci nekk ñu ñëw ñu droité ñu wàcce suñu bagage yi waa ji di xool di xool ba génn suñuy pat dentifrice mu ne lii fu ngeen ko jënde ma ne ko Dakar mu ne est-ce que wóor na ma ne ko nañ ko laaj yàlla mu ne hee sa waay jële say bagage jël leen bagage yi ngeen dem wala yow yow ma nga nga nga ma ne ko ah yàlla mooy seede bi moo tax na jël leen bagage jël leen dem leen dem leen dem parce que ñaanal leen ñu talal loxo yi waaw c'est le problème ana yàlla gis nga yàlla bu nekkee sa digganteeg jaam yi dootoo sonnati da ngay am da ngay noppalu yonent bi dañ ko laaj ne ko lan mooy rafetal mu ne nga jaamu yàlla comme yàlla mi ngi lay gis déglul foofu bu baax comme yàlla mi ngi lay gis waaw tey jii kenn fi mi bu ko kilifaam doon gis rek day normal waxuma la ak yàlla mu ne na nga jàpp ne yow boo gisul yàlla fa innahu yaraak moom mu ngi lay gis ñaar yëpp day tax nga jub ñaar yëpp beneen bi mu ne an takuna ibadati xaacha sama jaamu ne nekk toroxlu mbokk yi kañ la ñuy amati julli gu am toroxlu kañ la ñuy amati jàng alquran bu am toroxlu kañ la ñuy amati toog di def ay azkar yu am toroxlu kañ la ñuy amati jaamu yàlla boo xam ne yow mi ngi koy def yow mii di ko def wallahi bi nga ko defee ba pare da ngay sentir ne man tey de tey dëgg dëgg jaamu naa yàlla wala tey jàng naa alxuraan wala tey tudd naa yàlla wala tey def naa nangam kañ jaamu yàlla gi da nga ci war a yëg toroxlu ndax yow jaam nga yàlla mi la sant nga xoolal tey boo jëlee nit mu lay liggéeyal sa kër dana raxas duus bi wala ki nga jël mu lay liggéey sa kër mu lay raxasal sa duus dafa toroxlu wala toroxluwul dama leen laaj mu lay fompal say karo mu lay baleel sa ron lal mu lay raxasal say ndab mu lay tuural mbalit lii lépp mu def toroxlu la wala du toroxlu lan moo tax mu def ko dafa am lu mu yaakaar weer bu dee ay koppar yu bàyyi ko ci yow di ñëw ci moom moo tax mu nangu lépp loo ko wax defal mu defal ma ko soo ko ne laabal xale yi mu laab leen même xale bi bu yàqoon yére yëpp ba nga xam ne kii foog loxoom laal sobe bi di nga gis mu def ko lu tax ndax dafa am lu mu yaakaar ci yow léegi yow lan nga yaakaar ci yàlla ñun lan lan yaakaar ci yàlla lu ñuy tere torox lu lan nan xool kii nangu lii li tax mu nangu ko ak ndeysaan sunu benn oustaz nee na dafa toll ci waxtu sedd mu dem muy tukki mu jaar ci benn marché fa la war a jële oto nee na sedd baa ngi sedd sedd boo xam ne nee na fi mu toog di xaar oto bi mu ngi kof kofi mu gis benn waay sàngoo ñetti saako ñetti saako la waa ji sàngoo waa ji yemul ci sàngoo ñetti saako nee na waa ji baa ngi jël benn dàmba bu fees jën te dàmba bi mu ngi fees dell ak glace ndox maa ngi sit ci waa ji waajaa ngi daw di dukki dukki di way ay woyam yu sedd di tërëre di faalewul sedd bi lu tax ndax juróomi dërëm wala fukki dërëm yi mu yaakaar ne bu yennoo ko pañe bi ñu jox ko mu ne foofu laa toog ma xool waa ji mu ne ma xool waa ji ma natt waa ji li mu yaakaar ci dàmba bii mu yenu ci waxtu wii mu ko yenu ak dàmba bi ni mu mel dàmba bi lu ci nekk jën jën lu ci nekk dafa sicc ba pare jën yi dafa bëri diis ba pare jën yi dafa am glace ba pare waxtu waa ngi sedd waaye fukki dërëm moo tax waa ji ñaar fukk moo tax waa ji yenu glace gi yéenu jën yi ak xasawaay beeg diisaay bi sedd bi li muy métti métti yëpp waa ji ñaar fukk yooyu moo tax mu def loolu ñun ñu yaakaar yàlla yonent bi ñu ne ñaari rakka fajar xayrun mina dunya wa ma fiha te ñu ëpp ci ñun fii fajar duñ dem jàkk fajar duñu laal ndox mu sedd mi fajar duñ génn ci lëndëm gi xoola waa ji ñaar fukk la yaakaar mu génn këram wàcc lalam sàngoo ñetti saako yenu pañi jën pañe bi dafa am glace ñaari glace yi sedd seddaayu ngelaw li ak seddaayu glace bi xasawaayu jën yeeg diisaay bi terewul waa ji ñaar fukk yi la yaakaar mu dem defi ko yow nga yaakaar yàlla yaakaar aljanna munoo yeewu fajar dem jàkk munoo yeewu 4 heures du matin di naafila di jox sa borom naafila munoo iñaane nga sa borom ñeenti ràkk yoo koy jox ci guddi gi iñaane nga sa borom xiyaamul leyl ba pare nga ne yow am nga pas-pas am nga imaan yaag borom ñaar fukk yii képp pas-pas te kii àdduna la yow yàlla nga yaakaar mbokk yi mbir yi souvent li ñuy gàllankoor mooy fi ñuy xoolee fekk mbir mi romb na foofu xam ngeen lu tax saxaaba yi raw ñu ah saxaaba yi xam ngeen lu tax ñu raw ñu xam ngeen ko mooy mbir mi ba ñu xamee ne lii la dañ koo def noppalu ñun dañoo xam lii la bëgg a wiiri koñ ñun xam na ne àjjana yoon baa ngi nii mu ngi nii waaw sax yoon bi dafa gudd de amul feneen fu ñu war a kii su ma jaaree nii su ma kiiyee fee su ma noonu lañ ko bëgg a defee bëgg a àjjana du mënul nekk mënul nekk wax naa leen fii xista bi ma fi mujj wax naa leen xays nettali naa leen histoire xays ak layla xays dafa nopp layla ba du gis du gis layla rek la nopp moom rek mu gis xaju layla rek mu ne ah xaj bi de bu ma ko toppee gis layla mu topp xaj bi mu romb ay nit ci àll bi ñuy julli moom romb na leen vif topp xaj bi mu dem ba ñëw kaay na ko yow ku bon nga mu ne lu ma def ñu ne ko yow nga romb nu fii ñuy julli ñun gis nañ la nga topp xaj bi naan da ngay wëri laylaa mu leen julliwaat leen julliwu leen man ba ma nobee laylaa gisuma leen yéen ba ma nobee laylaa gisuma nit gisuma leen même bu ma leen rombee ngeen di julli gisuma leen ndax moom bu lay laa rek laa gis yéen ngeen taxaw ci kanamu yàlla di ma gis waaw mooy suñu problème jaamu yàlla dafa waram toroxlu xa xusoo qad aflaha al muminuun alladina hum loolu du ay alxuraan yàlla nee na way gëm yàlla yi texe nañ qad aflaha la yàlla jiital yéen ñi jàng arab ak ngeen qad mu ne aflahal muminuun ñan alladina hum fi salaatihim xaashi'uun ñi nga xam ne bu ñuy julli dañuy toroxlu yonent bi saa salaam bu daan julli dañuy dégg dënn bi azizun ka azizil mirjal minal buka muy xarek xarek xarek mel na cin buy baax di jooy ah nun allahu akbar asalaamaaleykum affaire bi doo xam lu mu saf doo xam lu mu neex lu koy du mat su jooy du mat rak tak dóor mu daanu imaam dóor ko mu daanu day de fu ñu jëm boo fiy julli sax boo jàngee lam yaku ñu porte la plainte lam yaku laa wax ñu porte la plainte kii dafa soof kii daa mën a guddal kii kenn xamul lu muy neexal baat kii kenn xamul li di la commencé indil ay jafe-jafe àdduna benn saxaaba reer na ba pare mu ñëw kër yonent bi di ko ziyaare mu ñëw fekk yonent bi kàbbar jàng fatiha mu ne xam naa day naa fi la xaar ma kàbbar topp ko rek yonent bi jël baxara mu naan bu amee ay quelque rakk xam naa dana rukkoo bakara jeex bakara jeex mu ne ah kon de xam naa ne ala imran insha allah bu ci amee ay quelque aaya dina pare yonent bi jeexal ala imran daal di rukkoo lu toll ne li mu taxaw siggi lu toll ne lim taxaw sujjóot lu toll ne lim taxaw saaba bi doon nettali xadis bi nee na yonent bi muy am ñeenti ràkk lu bon laa naroon bu continué woon lu bon laa nar ñu ne ko lan mu ne damaa naroon toog te julli boo sonnee nga toog dagan na xoola moom mu ne lu bon laa naroon lan mooy lool mu ne ñaari ràkk lu bon laa ci naroon mooy lan damaa naroon toog xaar ko ba muy sëlmal ma sëlmal te julli boo sonnee mën nañ la nga toog wala moom mu ne loolu lu bon la kon est-ce que dëgg-dëgg ñun réellement liñ ñuy wax nee na julli googu jaamu yàlla googu sax jaamu yàlla googu ngay def di ci yëg xusu mu ne astashir fiha xaraaratul wisaala wa lazzatil xusu dama yëg dëgg dëgg dëgg benn tàngaay benn nugg benn benn neexaay boo xam ne dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg tey jokkoo naa ak sama borom ci jaamu yàlla yëpp la de nekkul julli kese moo tax da ngay gis même julli nga gis kuy julli di jàng alxuraan di jooy ah nga gis kuy nodd di jooy nga gis ku yenu néew di jooy c'est parce que day yëg day yëg tey dara damay yëg dara kañ lañ gëj a yëg ñun ñun kañ lañ gëj a yëg chaque jour nga dégg benn mbokk bu ne oustaz wax dëgg yàlla man de maa ngi julli maa ngi wor maa ngi jàng alxuraan mais du ma yëg dara parce que niñ ko war a defee lañ ko defeewul affaire bi du ay geste kese taxaw allahu akbar allah wala jàng alxuraan wa du loolu kese communication la sa digganteeg sa borom ngay anta tuxaatib rabbak dañu laaj dañu laaj Omar ibn Abdul Aziz Omar ibn Abdul Aziz yow booy julli rek soo ne bismillahi rahmani rahim nga am arrêt alhamdulillah nga am arrêt mu ne déggu leen ñu ne ko lan la mu ne yàlla mu ne qasamtu salaata bayni wa bayna abdi julli gi dama koo xaaj sama digganteeg sama jaam sama jaam bu waxee lii yàlla wax lii mu ne man may wax ak yàlla yàlla di ma tontu dinaa yàkkamti ndànk laay def parce que maa ngi wax ak yàlla du ma yàkkamti. tey jii kenn du ci ñun bu duggoon bureau Macky Sall mbokk yi ñu jàkkaar jàkkaarloog moom nii muy wax ngay tont ndax da ngay parax paraxee wala da ngay jël temps.
da ngay jël si temps.
dama leen laaj. kenn ci ñun du parax paraxee doo fa nekk naan damaa bëgg kër bëgg avion bëgg bëgg bëgg ndànk ngay def. monsieur le président maa ngi lay ziar. da ngay dagg affaire yi maa ngi lay nemmeeku maa ngi lay ñaanal yàlla nga ndànk ngay def léegi nag yow nga toog ak buuru buur yi ngay parax parax même sax boo paree julli astaghfir nii lañ koy def nii bu dee course léegi yow nga bëgg ci am dara nga bëgg ci am dara yow nga toog ak yàlla allahu akbar nga sujjóot ci kanamu buur yàlla subhanahu wa taala waaw ndeysaan léegi yow ngay parax paraxee mbir mi ngay daw mel ne dañ lay dàq am na ñoo xam ne seen jaamu yàlla dafa mel ne dañ leen a tiim ak yat dañuy rët ba am na ci ñoo xam ne ci ñun waxuma la sax duñ def waaye baat yi sax niñ koy waxee du noonu soo waree wax subhanallah subhanallah yi ngay wax boo waree wax allahu akbar nga ne jaakubar wala haakubar boo waree wax laa ilaha illallah nga ne laa ilaha illallah boo waree wax astaghfirullah nga ne saafurulaay léegi nga bëgg a nekk ci saafurulaay fanweeri at saafurulaay juróom-ñaar fukki at saafurulaay saafurulaay saafurulaay te waxoo wax bi tey jii bu ma leen joxoon sama numéro téléphone ma dem ngeen kenn ci yéen di ma woo mu yàq ci benn lettre benn laa wax mu yàq ko ci dinaa ko wuyu wala du ma ko wuyu du wuyu soo waree wax astaghfirullah nga nekk fa naan saafarulaay yàlla dina la wuyu te xam nga lu doy waar yàlla boo ko woowee mu wuyu la assur assurance la même boo dee yéeféer boo woowee yàlla yàlla dara wi même boo dee yéeféer laa wax soo woowee yàlla yàlla daf lay wuyu yonent yàlla Moussa dafa am kenn ku doon jaamu yàlla samp instatem naan yaa sanam xam ngeen sanam mooy xërëm yow sama xërëm yaa sanam yaa sanam yaa sanam noonu mu koy waxee mu gaaw mu ne yaa samad yàlla mu ne ko labbayka yaa abdi yaa ngeen qul huwa allahu ahad allahu mu ne yaa samad tur yàlla la yàlla ne ko labbayka ya abdi yow sama jaam bi wuyu naa la Moussa mu ne yàlla ki yéeféer la dafa juum du yow la doon woo yàlla mu ne yaa Moussa hal min samadin gayri Moussa ndax am na ko tudd samad ku dul man Moussa ne yàlla déedéet yow daa tudd samad mu ne waa ji man la woo foog ma wuyu ko man ku ma woo ma wuyu la ñun tey duñu woo yàlla boo amee tey jii ñu nii ku ci am aajo balaa ngay woo yàlla da ngay wër ba sonn même bu dee ku feebar la sax balaa balaa ñuy ñëw ci yàlla dañuy dem ci maaman yi ba ñu jeexal tàkk ñu jëm ci hôpitaux yi demal Dantec nga ñëw ñu ne la principal nga ñëw ñu ne la Fann nga ñëw ñu ne la CTO nga dem ñu ne la Thiaroye nga dem ñu ne la Abass Ndao nga dem ñu ne la ba nga xam ne jeex na nga indi malade bi teg waaw waaw sawaay ah léegi ni koy yàllaa ci des yàllaa ci des avant ñuy dem loolu ñu xam ne yàlla la déedéet dañuy dem ba jeexal ba mënuñu dara nga xam ne léegi def nañ lépp ñu ne yàlla nag ndeysaan léegi nag ñëwal yow rek mënoon lu rayaate kaay rey ko yow rek moo fi des kaay rey ko loolu rek nga mën waaw loolu mooy sunu pas-pas moo tax duñ dem lii moo tax ñu am problème lii moo tax jaamu yàlla yi mënta sell lii moo tax jaamu yàlla yi mënta wir lii moo tax li ñu ut ci jaamu yàlla mënuñu ko am damay yëg ci sama jaamu yàlla tàngaay goo xam ne daf may jokkaleeg yàlla ma toroxlu qaalat aisha radiyallahu anha kaana rasul sallallahu alayhi wa sallam yuhaddisuna wa nuhaddisuhu fa ida xadarat salaati ka annahu lam yaarifuna wa lam naarifuhu wala yonent bi ak garaat bi ko yàlla takkal yaay Aïcha nee na bu toogoon ak nun dañuy waxtaan ak moom muy waxtaan ak nun am indi am indi am indi bu déggee julli jot noddu nañ day mel ne xamatuñu ñun xamatuñ ko bu déggee julli jot day mel ne xamatuñu waaye nun sax buñ ko bëggoon xam duñ ko xam lu tax ci wàccaay gi ci préparation bi kan lay dajeel dañoo fekk benn waay benn noddukat day nodd ci benn jàkk saa yu ñëwee day fekk benn waay taxaw wéeru ci buntu jàkk ji waa ji seetlu seetlu seetlu seetlu seetlu waaye yow yow lu tax nga may jiitu mu ne ko man duma xaar yàlla di ma woo duma xaar yàlla di ma woo ñun fii balaa ngay dem ñu ne asalaatu xayru minan nami nga hésité encore de waa ji daal di dóoraat asalaatu xayru minan nga jóg tayal di deedeelu bañ na allahu akbar allahu akbar nga doog a dugg jàkk ci léegi nag nga bëgg yow nga tolloog koo xam ne kaanu qalilan min al-layli nga bëgg a tolloog moom de nga bëgg a ëllëg boo solee sa daal nga ñëw buntu àjjana ngay buuxanteeg ñi nga xam ne allazina yabituuna li rabbihim sujjadan wa qiyama nga bëgg a buuxanteeg ñoom buntu àjjana allahumma arina alxaqa xaqan warzuqna ittibaa wa arina albatila batilan warzuqna ijtinaba leen yàlla taxaw yaay Aysa nee na yonent alayhi salaatu wasalaam dañ daan toog ak moom di waxtaan ak moom yuhaddisuna wa nuhaddisuhu muy wax ak nun nuy wax ak moom waaye fa ida hadarati salaa su julli jotee ka annahu lam yarifuna wa lam naarifu day mel ne xamatunu nun xamunu ko mu ne wa ila hada yasiru rasul saa sallam bi qawlihi kam min qaimin hazzuhu min salaatihi attaabu wa nasab ñaata nga gis ku taxaw fërëx fërëxi julli xam nga lu mu jëlee ci julli gi yonent bi nee na coono coono ak njaqare kese la ci jëlee jëlewu ci dara tey mooy sunu julli yi mooy sunu julli yi ñuy julli julli koo xam ne ca nodd ba xamoo lu muy saf li xam bi xamoo lu muy saf nga ñëw ci julli gi xamoo imaam bi lu mu jàng xamoo alxuraan la xamoo lu mu wax nga ñëw ci ruko bi boo ne bu ne allahu akbar nga ne allahu akbar topp ko soo ne subhaana mu ne sami allahu liman hamida balaa nga naan rabbana walakal mu ne allahu akbar balaa ngay sujood naan subhaana rabbi mu ne sami allahu akbar taaya boo ne attahiyaatu mu ne assalaamu aleykum est-ce que Sénégalais yi dinañ julli suba 5 minutes julli suba 5 minutes julli tisbaar 5 minutes julli bu doon mat 5 minutes sax c'est bon rakka bu nekk sax bu ko waa ji doon def une minute une minute rakka allahu akbar sax ñu sant yàlla mais rakka ay seconde seconde la ñuy def rakka yi trak trak trak trak asalaamaaleykum te bu ñu paree kat di nga gis ñu dugg ci loo xam ne bidaa boo xam ne dañu fa def deux heures de temps te lii lañ leen di laaj lii kenn du leen ko laaj waaw wala sénégalais yi ni ñuy sonne ci bidaa li leen yàlla santul ni ñu ciy sonnee du ñu sonn ci li leen yàlla sante noonu jàng leen lépp nag ni ñuy sonnee ci li ñu yàlla santul buñ ko doon sonnee ci li ñu yàlla sant kon egg nañ bu yàgg waaye léegi koo xam ne julli deux minutes fobee caaxaan yee bidaa bee théâtre bi match de football bi Messi Messi ñaata waxtu la 90 minutes 90 minutes nga toog làmb ji ñaata minutes la théâtre bi ñaata minutes la ba pare te théâtre bi sax moom la ñuy ëpp xusu ak yàlla pays mi bi ah waaw moom la ñuy ëpp concentration ak concentration yàlla match de football bi sax moom la ñuy gën a concentré wu ni ñuy concentré wu ci yàlla léegi ñu bëgg ñu bëgg lan ñu bëgg nan am tiyaaba mbokk yi yéen tamit nag nañ leen seetaan mbir bi xoola waa ji buy seetaan théâtre su benn xale waxee mu ne eh jël yat ba nga wax fi rek billaahi xar ba nga wax xale bi na pat sooy julli musique bi ñu ngi ko ubbi dama fekk benn waaye buy julli teg musique nga boobu mañ tafon yi mu ngi doog a xew ngan di mañ a tafon mu ubbi musique bi danga danga mu taxaw allah mu pare ma ne ko yow salaamaaleykum mu ne ko waaw léegi sa julli bi ak musique mu ne non non non non julli ki man mënu maa tere teewlu quoi musique bi mënu maa tere teewlu man xam naa li may wax ma daal di koy bàyyi man bañ a wax ju bari ma daal di noppi bàyyi moo xam ne kii dafa yegg lan moo tax jàkka yi ñu ñuy tere basang yu ñu dessiné montre yi ñu def ci kanam lu tax ñu koy tere lu tax Omar ibn Khattab bi mu nee waa ji waa ji ñëwaat di defar jàkk yonent bi mu ne ko bul xonqal bul zonal li ñu bëgg mooy bu ñu naaj laal bu ñu taw laal bu ñu ngelaw laal loolu dong lañ bëgg waaye bul fi def loo xamante ne day tere nit ñi julli pour ñu am xusoo pour toroxlu mën a am ci jaamu yàlla gi la parce que jaamu yàlla bi moo la yóbbu ci yàlla yow yow soxla woo rek toog qaalatil aarabu amanna lan lañ leen wax qul lam tuuminu du dëgg wax leen dugg leen mais gëmu leen da ngeen a dugg rek wax naa léegi boo jàngee madaariju saalikin dañ lay wax boo bëggee yegg ci yàlla soo nekkee jullit des na benn point ah ngëm nga ñëw ci ngëm ñu ne des na lan nga ne ihsaan nga ñëw ñu ne lan la ihsaan lu ci tegu ikhlaas nga ñëw ikhlaas ñu ne lu ci tegu ah noonu ngay demee daraja par daraja daraja par daraja daraja par ba nga yegg ci yàlla tabaraka wa taala fii ngay toog ci suuf yegg ci yàlla yow nga dugg ci islam rek pare tëj bunt yi ne yegg naa nit ñaa ngi jëm cinquième étage yow nga dugg ci premier bi rek ci terrasse bi nga yem daan na nu yegg nanu même saxeen saay nga dégg ci yenn wala kaane yi naan waaw waaw man kay àjjana bu ma toggee ci bunt bi sax baax na waaw man kay bu ma toogee sax ci jardin bi man kay naa toog sax ci jardin àjjana rek baax na allahu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na di nga gis ëllëg yowmal qiyaam biir aljanna ni ngay séenee biddéew yi fii ci suuf nga toog fi di seen biddéew yi nga gis benn waay bu nekk këram aljanna di la seen ci suuf ni ñu toogee fii ñun suba ñu xëyee suba wala guddi gi léegi bu ñuy tësalmalee bu ñu paree léegi ñu xool asamaan ñu seen biddéew yi yonent bi nee na noonu ngeen di séenee biddéew yi da ngeen gis ay nit aljanna di séenee noonu ay nit ci biir aljanna yonent bi dafa yónni woon ay sahaaba ne leen dem leen place sàngam mu ngi leen yónni jeudi ci guddi diw diw diw diw ñu ne ana ngeen ñu ne ñoo ngi ne dem leen place sàngam ngeen def fa nangam ak nangam ñetti ñu jóg ne béréb war seeni fas dem kenn ki ne man de suba la ajjuma damay nëbbatu fii ba fajar ma julli ndoog yonent bi suba ma julli ndoog yonent bi ajjuma ma dem dabi gaa yi su ma demee bu ma deewee sama dernière julli ci àdduna yonent bee ma jiitu ma texe rafet na wala rafetul yonent bi xëy suba julli rek gis waa ji muy yolleeku yonent ne kii du diw mu ne man la kay mu ne waaw ah boolewuma la woon démb ci mbooloo mi mu ne ah kay loo teree dem mu ne yonent damay dem waaye xam naa ne du ma delsi dama bëggoon nga jiite ma fajar comme nii ma ko jullee nga jiite ma noonu ajjuma ci tisbaar bi ma dem su ma faatoo sama dernière ajjuma ci àdduna yaa ma ko jullee ma texe yonent bi xool ko ba caag ne ko xaw ma lu xew de waaye gars yi niñ la rawee ci dem bi noonu lañ lay rawee ëllëg biir aljanna ni la gars yi rawee ci dem bi maanaam démb ci guddi ba léegi ñoom ñu ngi dem noonu ñu la rawee distance boobu bu ngeen duggee àjjana it ñoom noonu lañu lay rawee waa ji di di di di rey boppam waaw julli di julli di démb soo leen nee diw dugg na àjjana diw jiitu na la ñoom la ñuy rey seen bopp ñun ñu nekk fi naan ñun bu ñu fanaanee ci jardin yeeg bu ñu nekkee ci kaw garab yi baax na loolu mooy sunu jafe-jafe jéemu ñoo def dara jéemuñu jaamu yàlla comme ni ko yàlla bëggee ñun daal loolu gaa yi naan moo yombale dan bëgg nekk fi ci sunuy caaxaan bu ndee dugg aljana loolu nag mënul nekk ndax inna allah ashtara min al muminina anfusahum wa amwalahum anna lahumul janna ala inna silatallahi xaaliya ala inna silatallahi xaaliya ala inna silatallahi hiya hiyal janna yonent bi nee na marchandise su yàlla dafa seer marchandise su yàlla dafa seer marchandise su yàlla dafa seer saxaaba yi ne ko luy marchandise su yàlla mu ne mooy ajjana ajjana tëdd dina la mayewu ko ajjana jël nit tëmbal ko fa mayewu ko ajjana yaakaar toog yaakaar defoo dara mayewu ko liggéey rek jaamu yàlla mooy yóbbu nit ajjana kon incha allah mbokk jullit yi ñu yem ci tomb boobu ba ñu ñëwaat fi ak jàmm ñu ñaan yàlla mu nangul ni ko asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu jazakumullah xeer